jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb Wassare TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bëgg bu baax baax di leen wax ne ñëwaat nañ fii ci émission ziar mbër ah ñëw fekk si fi ndaanaan ñoo ngi fii nag pikin bee paas ñëwoon naa Pikine ma Pikine boo ma gisee fi ma nekk nii xam ne fi mooy syndicat boo ñëwee di fi gis madd yi tol yi ah mango yi maanaam daanaka yi fi xew yëpp a ngi fi man bu ma bu ma gëstoo gis yii nii ma téye nii xam naa ne sama xel ah dina dem ci ñu ba ay da jaañ bu gisee lii xolam day sedd Adama xam naa ne yow lii sax di nga ko bëgg maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la bëggee di seet si tey ndaanaan ki nga xamante ni mooy Tampon ñu seet ko mu bokk écurie Ramdaan Tampon nuyu naa la. waaw Ousin maa ngi lay fay di wax de maa ngi nuyu ñëpp daal di leen ziar nuyu waa wasaare lamb bu baax a baax a baax di am contentement ci li ngeen def nii. waaw maa ngi jaar ñëpp. ñu ñu la ñoo fekk la maanaam bërëb bi ngay liggéeyee lan moo tax nga choisir ñu ñëw fii si syndicat fi ngay liggéeyee dañoo gis mbër bu leen seetee ñi dem seen kër xarit ñi dem ci géej gi ñi dem salle musculation yow nga ne na ñëw fi ngay liggéey lu waral lool. waaw loolu li ko waral du dara lu dul bëgg fi may liggéeyee fonk ko rek parce que nit ku nekk amul amoo fudul fi ngay suturloo ak fi nga amee sa teraanga làmb dëgg la gaa mais nag bu làmb jeexee dañuy nekk suñu liggéey moo waral ma choisir fii may liggéeyee nii loolu moo tax quoi. ngay wax mbër yi nga xamante ne amul métier parce que ku ne gis nañ làmb dafa métti te mbër mu ndaw du chaque am combat des fois nga am combat ren des fois nekk mbër ba pare nangoo liggéey lan ngay wax mbër yi nga xamante ne amuñu métier. ah xanaa di leen wax ne ñu delloo si seen xel rek parce que ñàkk liggéey ba mu wóorul nit ku nekk làmb dëgg la gaa mais làmb du métier ci benn côté parce que loo xam ne day dox la ak di taxaw benn blessure bu ndaw mën nga kaa am mu yàq sa carrière kon déjà kon boo concentré woo ci làmb kese du sotti il faut nga boole koog liggéey xel bi ma leen di jox daal moo ñu dem wuti liggéey bañ a rëy daal ku nekk war ngaa mën am looy sutur loo jàpp ci dara loolu laa gis daal ñu gën a delloo seen xel daal. fii ñu nekk nii sa place. waaw fii ñu nekk ni nu ngeen ni liggéeyee parce que dañuy gis des woo da di jox ngeen jaay nan lay demee njóob bi waaw ah, job bi ni muy demee mooy bu oto yi ñëwee taxaw yow da yor sa marqueur dem ak sa xaalis boo demee xool li nga bëgg nga marqué ko soo loo marqué yow yaa ko moom bu wàccee ci suuf nga waxaale ko jënd ko des fois boo yore xaalis man kaa jënd soo yore xaalis mën na laa lebal boo jaayee pare versé borom waaw noonu lañ fiy joobee. liggéey bi métti na fi. waaw ah, liggéey bi métti na méttiwul boo fi miinee moom jafewul waaye boo fi miinul nag moom liggéey bu jafe la mais du lu jafe lool ci ñun ñi daal parce que xaw nañ fee def moo tax jafewul ci ñun quoi. mais yéen ci am waaw ñu ngi ci am tuut tuut rek xaalis boobu bëriwul mais ñu ngi ci fab mais xaalis ndax mag tamit lu muy ñàkk tamit da ci tedd wala boog yàgg ci lu nit yàgg lu nekk moo ngi gis ñag waaw loolu moom dëgg la ñu ngi ci am xaalis moom mais xaalis bëriwul loolu daal ñu ngi ci waaw ñu ngi moo gën a dox fii ci syndicat bi syndicat fi gën a dox màdd ak mango moom instant bi ci bagage bi gën a jar la boog fi mu toll nii waaw moo gën a am quoi moo gën a bëri fi mu toll nii waaw ah, baax na lañ toll daal ñu dellu si ci làmb tampon ban écurie la nekk ñaata combat la def ak ñaata la waaw man maa ngi nekk écurie buñ naan Ramdan nekk fii ci Pikine maa ngi def 4 euh, combats 3 victoires benn match nul. jara 2. waaw. Eh, am na combat bu neex. waaw diggante ak Mbaye Tine combat la moom waaw. nee nag xamul lu ko dugal ci lu ko dugal ci Mbaye Tine booy boobu nga xam ne dafa ëste wow. Mbaye mooy loolu Mbaye Tine jaarukaay la rek dañ fay jaar jàll. loolu waaw jara ëpp doole moo dàq bu rek moo gën a xale. non gën a diis mais est moo ëpp doole. moo ëpp doole fuuf. waaw maa nuyu bu baax a baax moom Diarra 2 sama waay la seeti woon naa ko ñu am lu ñu def maa ngi nuyu Tafa coach maa ngi lay nuyu di la siyaar bu baax a baax kontaan naa ci yow ñu ñëw ci say combat sa premier combat yow kan sama premier combat ma ne ma ku ñu wax booy jaañ la ko Boy Diagne ban écurie la moom fii la nekk nag yi fii nu mu tuddati euh, Kër Masar la nekk daal. waa Kër Masar la nekk. waaw maa ngi dugg ci làmb ba dóor est mbapat nga lu bàyyi. waaw parce que man ba mbapat laa gën a def sax kañuy bëre ci arène bi li ma def ci àll bi dafa guma ko ci arène bi quoi mhm. waaw. am damaa jël jël ay drapeau li ma jël ci drapeau mënu ma koo wàññi wax dëgg yàlla waaw bëri na trop. que daan nga ko mbër moo xamante ni fi mu toll nii ñoo ngi koy coow ci làmbu bëre dóor. ci làmbu bëre dóor bi. am na ñu ma ci daan de. waaw ku mel ni ay laadu mburoog énergie ñooñu daan naa ko. Mhm. ak yeneen gars yi am na ñoo xam ne mënu maa tudd seen nga jóge foofu ñëw fan nga fan nga fan dooree fii nga ñëwee Mbapate wala ci àll bi nga jógee Mbapat doogu ñëw Dakar. non Dakar moom dama fee ñëw fii laa fii laa fii laa duggee ci làmb. waaw bi may nekk fa ma dëkk fa suñu dëkk ba ma fay nekk boobu commencé wu ma bëree. damaa ñëw fii Dakar en 2008 laa ñëw fii ay yooyu ci laa commencé di bëree Mbapat quoi. ñu yabal la nga ñëw liggéey si nga ñëw di bëree Mbapat. waaw parce que làmb dafa nekk sama deret quoi ndax damaa ñëw fi fekk sama benn mag bu ma nekkaloon fii nga xam ne ma ñëwee moo ma hébergé woon. Mhm. boobu moom day bëree quoi affaire làmb neex ma suñ demee géej ñooñu dañ doon entraîné man entraîné ma pour ñu daan ma problème la ma ma dugg si loolu moo yooyu noonu xaw a diis nga am doole ñëw ne xaaral ma ñëw ñafanteeg ñii gars yi amuñu doole. waaw bi moom mooy loolu boo fa nekkee xam nga liggéey bi bariwul loolu te da ngay lekk gannaaw da ngay am doole. Mhm. aussi loolu tamit xam naa li ma gën a yóbbaale ci la bokk. ok nga ñëw fii commencé ba mbapat ba mbafat lu bari après nga dugg arène sa premier combat arène naka la demee est-ce que metti woon na ak ñaata leen la fay xam nga waajaay bi parce que ku ne xam na ne bëre dóor yamul ak bëre simple même boo yàggee ci mbafat soo ñëwee ci bëre dóor dafa xaw a tuuti différence. waaw sama premier combat fii moom jafewutoon daal ndax li tax jafewutoon dafa fekk boobu man maa ngi bëre si àll bi ay combat yu méttee métti léegi daj coono yu ne moo tax bi ma ñëwee fii nii defuma problème daal comme man li may bëre du combat quoi xam benn combat moo gën yomb ngay bëre tournoi. noonu laa ko jàppee loolu dafa méttiwut man man loolu tax méttiwul woon quoi. problème ci kaadu xeex bi. bi nga ñëwee abi sifle bu dee mbapat la da ngay léewtoo daw jàppante mais bu dee bëre dóor la yaa ngi sàmm sa kanam sàmm say tànk ak sa garde est-ce que xaw woon métti tuuti. noo du métti xam nga ñun secteur ban secteur bi ma jàngee bëre. muy côté jaxaaw ay côté Fatick yoo xam nga ñooñu dañuy def bëre dóor yoo xam ne tournoi lay doon. Mhm. man foofu laa jàngee bëre. te foofu dama daan lu seen làmb yi bëre dóor la. laa defee laa defee raw gàddu ba yéeg poids léger moo tax bi ma ñëwee fii affaire bi jaaxalu ma. nga ñëw ba sa premier combat daan coow lu topp la ñaan naan tampon waaw noonu la demee exactement moom moom combat yi fii dina metti lool mais comme ça buñ la lay coow <laughs> xam sa bopp rek xam li nga bëgg quoi. sa deuxième combat yow kan la. combat ku wax Boy Diagne laa bëri la. waaw. ma daan ko. daan troisième combat. sama troisième combat ma ne la ku ñuy wax Ligma laa bëri dafa. dañoo machine quoi. dañoo machine waaw. ok quatrième combat. ma bëree ku ñuy wax euh, Ndiak. Ndiak Ndiak la Ndiak la magicien waaw. ok ma ko daan. waaw. Ndiak xale a bëree boobu. non Ndiak Ndiak mooy loolu. <laughs> Ndiak mu ne Géejawaay Géejawaay n'est-ce pas. écrit booy gànjool yaakaar naa la nekk suma jëmul waaw. foofu la nekk. cinquième combat. non quatre combats rek laa defagul nag waaw quatre victoire waaw cinquième moo doon yóotu pour le 12 avril mais mujjul sotti coronavirus bi jaar fii. ok la woon. ku ñuy wax booy remarque mu nekk au nit Balla Gaye. ñëw ngaa jël booy remarque. waaw ah, lu ma ragal man fi mu toll nii may ragal ci làmb ma bàyyi. <laughs> gis nu mu toll. ah loolu si dara loolu du si la man poids lourd yi may daan ci àll bi ñu ëpp kooku foofu boo rëmal ko du dara mag la te ñun ay xale la dañoo war a dem. <laughs> tampon bàyyi li ngay def. ah billaahi. ah kon combat bi taxawoon na mais corona bi ko xaw a ko yàq nag. parce que jour bi ñu war a ba ma waxee ak Abdoulaye ci jour boobu lañ àcc euh, le ministre bi wax quoi que làmb yi arrêté quoi. mais nga nekk mbër ak par rapport ni nga dundee fii syndicat bi est-ce que du xaw a métti parce que syndicat bi ku ne xam na ne ku ne fi ñëw su ma amee combat la moom du ma yàqal sama liggéey 100 pour cent quoi mais dama dinaa wàññi nag bu demee lamb bu sës dama door a arrêté mais du ma yàqal sama liggéey parce que damay fajoo dem entraînement su ma ñëwee bu sama place toog liggéey waxtu entraînement jotee ma dem am ku ma fi bàyyi mu desal ma fi ma dem entraînement su noonu daal laay doxalee. mais fi mu toll nii amuloo combat naka ngay gérer entraînement yi ak job beeg yooyu journée bi ñaata séance ngay def. waaw ah, deux séances rek ngay def da ngay dem fajar gi boo demee fajar gi ñëw noonu ngay continuer ñëw ubbi continuer jaay boo demee jaay ba 6 heures 5 heures nga dem entraînement. noonu la ñuy doxalee waaw. léegi ñu gis la yooyu nag jàll mais sa premier combat yi. combat yi xeex xeex bee ci ëppoon wala bëre moo ci ëppoon. waaw ah, sama premier combat nag moom moo ëppoon quoi. parce que ñooñu ñu la jox noonu dañuy jàpp ne daxaar nga gu jógee ci kii bi rek ñëw mënoo xeex dañ leen di wax ne ñooñu ay mbëru simple lañ nangam nangam soo ñëwee rek ñu jàppee la benn daxaar fekk demeewul noonu nag suñu xeexee su xee bu méttee ba méttee ñoo xam ne kii dama xeexkat nga dañuy wari quoi noonu la demee mais sama premier combat moom xeex moo jëppoon. xeex woon ci yow premier combat. non méttiwul man parce que li ma lay wax rek man ci àll bi bëre dóor laa jàngee bëre waaw moo tax méttiwul daal waaw léegi seen kii kan mooy tête de bi. Jarado Jarado moo nekk foofu mooy tête de file waaw. yaa ci topp wala am na ñeneen. waaw après am na ñeneen ñu fa nekk rek man topp moo ci man moom ci booy fa gën a ndaw laa bokk quoi maa <laughs> booy booy ngeen booy wax de booy laa toogal kon booy laa booy bu ndaw laa. Ah. waaw. mais lan moo la duggoo ci làmb lan lan lan moo la ci làmb ban ban ambition nga ci am. ban ambition laa am ci làmb xanaa ambition bi ma ci am daal mooy moom man teraanga laa bëgg ci làmb wutukaayu xaalis laa ko jàppee tamit waaw donte bëgg nañ si palmarès bu rafet palmarès bu rafet mooy wutukaayu xaalis bi rek parce que sa palmarès bu rafetul mënoo si am li nga bëgg quoi waaw parce que gis naa ne samay morom rek ñoo ciy am xaalis kon dèjà man loolu laa loolu duggee daal ambition boobu laa ci dugg pour am si dara waaw. mais ah, ñu ngi lekk weccet mais weccet bi ñu ciy lekk mooy drapeau yi ñuy jël ci àll bi rek mais bu dee combat moom xam a xam nga dem jël léeg-léeg nga dem su ma déggee daal maanaam fi mu toll nii da ngay bëre mais laalaguloo xaalis. non non laalaguma xaalis moom. waaye li lay fay mooy loolu quoi mënoo si am dara yow yaay bëgg yow yaay bëgg a jénn wane sa bopp moo tax doo mën a jot xaalis instant yii noonu la fa demee quoi. su ma déggee wax ji daal maanaam da ngeen di bëgg a fayok mais da di jëlaat seen alal dugal defaat ci lam mbëbu mbëbu ndaw metti na de. mbëbu ndaw metti na trop gars yi buñ la lu la mën a fay yow di nga jël lu ko duubul ci delloo ko ci kon dèjà li lay fay moom du doon dara yaay jël sa alal di ko ci def te bu fekkutoon nga yor dara it mooy loolu day metti si yow. waaw bokkuloo ci mbër yi nga xamante ni ko promoteur yi leen nekk seen avance. non man moom benn promoteur du ma jox billet moom loolu ko ay billet parce que ñun dañuy jaay ay billets normal moom suñuy supporter marché bi loo fi indi gars yi jënd ko mais nag kenn duñu jox avance billet da nga ñuy jox suñu xaaj ba pare après boo indi nga indi ko ñu jaayal la ko waaye nooy def ak nooy def ak supporter yi noo ngay def ak supporter ñoom ñooy ñoom ñooy dajale am nga fan si club wala waaw am naa fan si club am naa fan si moom wax naa di leen sant leen gërëm rek ndax xam nga am combat ñu jógee dëkk ba fii waa marché bi booloo aussi di la jàppale xam nga loolu moom mënoo leen fay daal noonu lay demee. noo gisee noo gisee gason mi nga xamante ni dafa bàyyi woon làmb ji léegi mu dellu si waat boole ay mag ku ci mel ni Balla gay Bombardier Reug Reug ah Tapha gi Gris Bordeaux mun na leen a boole ak fi làmb toll ku ne nekkoon ne làmb dee na surtout saison ren bi nii naka nga gisee loolu Gaston def. waaw loolu moom dañ koy rafet lu rek initiative bu rafet la. parce que làmb ak ni mu raflee ay combat booy xool saison bi ren combat bu mag bu tax ñu wax taxaw fii moom bu ñëwee ba indi loolu ñun dañ koy ñaanal rek mu réussir te loolu lu neex lay doon parce que làmb ji dañu wax ne dëgg ponkal yi ñoom dañoo nekk ci seen kaw ci kaw rek di bëgg a seen biir te loolu yoon dañoo war a waaj bëre booy ku mel ne Balla Gaye Boy Niang làmb la Tapha Tine Reug Reug làmb bu neex la ak Gris Gris Gris Bordeaux Sa ay làmb yu neex la loolu moom dañuy ñaan yàlla mu bañ a échec rek mu loon du sotti quoi. mais est ce que combat yi tamit jaadu na est ce que est ce que est ce parce que boo xoolee ku mel ni Fass waa Fass nee ñoom pare wuñ ko bëre moom boo xoolee Reug ak Balla Gaye gars yi tamit nee nañ bugguñu est ni mu tegee damiyee combat yi est ce que baax na. bu fekkee luy doxal lamb rek la ñuy baax na damaa xam ne nag mbëri ñoom bu fekkee seen intérêt la ñuy défendre ndaxte yow mbëri mag yi rek ngay dégg ñuy bañ bu ndaw bi te li tax xam ne ñooñu suñ bëre ak ñoom mën nañ leen a daan te loolu maanaam doon seen avantage mbëri mag yi rek ngay dégg mbañ xam mbëri ndaw yi bañuñu ñoom xam na ne loolu luy doxal làmb la. mais mu ndaw boo gis bu nekk mbër mu mag la bëgg a dajal. waaw ah mais est-ce que combat yi jaar na parce que xoolee ku ci ni euh, Sa Thiès combat moo Garga Mbossé neex na Sa Thiès combat moo Yékini Junior neex na Sa Thiès combat moo keneen ak neex na Reug Euh, kii wa ngi fi Tapha Tine a ngi fi Tapha sax sooy na moo Garga neex na moo Sa neex na moo euh, Forza neex na est ce que tamit bu ñu tëbee ñi ñi ñu war a bëri yóbbu leen ci kaw est ce que après duñu am problème di retourner waat bi muy yéeg si genre mhm. la jaar ñoom Baboy ak ñoom Tapha Gueye ko may loxo mu yéeg moo tax kon ñoom dañoo war a may seen rakk parce que ñoom rëg-rëg ñi dem nañ ba si seen kaw dañ leen di moytu rek mais ñoo ñoom ñoo fi ne ginnaaw ñoom rëg kon ak ñoom Boy Niang kon li jaaru ci làmb moo ñu jël leen rek bële làmb ji neex bu ñu bëggee làmb ji dox ñoom ñoo tëj làmb ji nag ñoom VIP yi ñoo tax làmb ji problème bu mu am rek mu am ko buñ ubbiku woon la booy wàcc bëreeg booy wàcc ji day ubbeeku quoi comme li Modou def moo ko Ama waaw comme li Modou Lo Ama Baldé def loolu làmb ji ne bàyyi boo ñaa Balla Gaye làmb ju jaarul moom wax dëgg ay làmb neex la yoo xam ne gars yi soxla gisee combat boobu taxaw depuis boobu ah làmb xam naa daal bu li dama siy ñaan yàlla def promoteur bi ko tëgg te yàlla def ñu téye ko ñu bàyyi ko ndax làmb ji mën a sotti ndax damaa gëm ne kooku su bàyyi suñ ko bàyyiwul rek làmb yi du mën a sotti quoi mais dañu koy ko soxla tamit dolli ci waaw. boo gisee coronavirus bi ñëw tey dëkk bi ku ne xam na ne économie bi yëpp taxaw na muy làmb ji muy sport bi muy dund beeg lépp ak yéen ñi nga xamante ni da ngeen di jaay est-ce que yëg ngeen ko. waaw yëg nañ ko bu baax a baax ndax heure bi daan fekk suñu bagage yi day dox normal mais instant yi mooy loolu ni doon jaay mënatuñ ñoo jaay loolu xaaja mënatuñ koo jaay ndax corona bi école yi tëj na ñun jaay ni jaay dañ koy jaay si école yi di ko jénn dëkk bi te corona bi moo ñëw yàq lépp ñun dañuy ñaan daal yàlla def mu jóge fi moom loolu lay ñaan métti na trop léegi nu ñuy ñu dem jug seet yi ñeen ñi ñu def ay témoignage si yow waaw nañ jóg seet dugg sama gars waaw Adama nañ jug dem am ñu xool jëli ko fee te ñëwaat léegi léegi ñaar ñooy samay ñuy dox di dem tasanteeg ñii ñi ñoo ñan. waaw ñii de samay gaay lañ moom ay mbër lañ comme man. ñoo bokk nekk fii ci marché bi quoi samay gaay yu baax lañ. ñuy jàppalante ci wàllu làmb ji bu baax ak liggéey bi quoi waaw. jàmbaar nuyu naa la. waaw fay naa la ku baax. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. dëgg la. ñu ne xaar ñu nuyu leen ngeen jox ñu ay témoignages ci moom. dëgg la onze bi la allah inna wa yàlla jërëjëf Serigne Touba. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Abdou Karim sëñ Fallou bu baax ak ak njabootam yëpp kii nag boo nu laajee sama nen ci sawar nañ si kontaan ndax sunu grand la sunu xarit la mën naa ne maag moom sax ay génération lan mais boo jàppee nga naan sama grand la mais benn lan ndax xele la comme man mais wax dëgg fa yàlla baax na nit la taalibe la solo rek moom solo si doomu aadama te sport mu yëngu itam bëgg na ko fonk na ko respecté na ko itam kon nun si def dara lu mooy di ko ñaanal lu mu si bëgg ak lu mu si xalaat ak lu mu si mébét daal ak lu si wër sëgëm yàlla sunu borom defal ko ko mu jot ko ci lu kawe njortam mais ku baax la amul benn problème day moom bëri lay def fu ne lay dugg di bëri damay ànd ak moom si àll bi xam naa ko bu baax a baax a baax mais fii combat yi fii xam nga boo doonee boy town ak boo doonee ko xam ne nii ci àll bi nga dëkk bokkul public bi maanaam mën naa ne bokkul ak maanaam mbooloo bi ak xame yi xam nga connaissance bi loolu moo ñu xaw fii tuuti mais ndaanaan la ku li faddilin gaa yi ne si làmb ji amul ko ko si man ndax ñi ku génn saal bi rek xamante nga ak moom day jëflanteeg yow muy simple beeg dóor bi li ko dale boo génnee Bambey ba ni ngay dugg Diourbel ba Darma ba ni ngay dugg jaxaw ba ni ngay dugg ay àll bi foo xam ne dañuy def bëre simple ak bëre dóor ak seen côté boobu ay saalum foofu yëpp ub na ko ndax man teg naa sa bët ànd naa ak moom te du ma ne kenn yàllaa ngi lay nuyu ca gisuma ko mais dama ànd ak moom ay maintes fois muy jëli drapeau bërki dem boo njaay benn làmb dem na ko fii nii Jaxaaw boof moom moo jël final bi quoi ñaari nag lañ tegoon foofu noonu moom moo ko jël moo gaay ñi mandal nga xam ne kook moom daanaan la doonul mbëru taqali doonul mbëru cogo yogo nii fonk na affaire bi respecté ko daal yow nag amul luy def lu mooy la sant lii la gërëm quoi waaw ñun nag amul dara lu muy marché bi syndicat lan am amul feneen amul autorité yi ñuy jàppale syndicat bi lan am sunuy grand lan fi nekkal ak sunuy papa suñ jógee ñoom ñu jóg ak sunuy booy xam nga ñoom ñoo ñuy jàppale nag bu dégg bëccëg ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm bu baax di profité nuyu sama fans club ligu bi ne fii ay ñoom Ousseynou Gueye président fans club ay ñoom Bayrat Mbaye Sa Ibrahima yi di nuyu sama yaay joor ki jaay fii restaurant aw ma fayam ay ñoom sama grand yi ne fi yëpp maa leen di sant merci beaucoup jàmbaar nuyu naa maa lay fay waaw sant alhamdulilah ñoo seet seen mbër mi Tampon loo ñuy wax ci moom. Tampon comme li li Coor wax rek maa moom presque moom ba muy dugg ci lam di doog a dugg ci ay lamb tournoi yi parce que bu ma yeboo ne la man maa ko yóbbu kon xam nga ne kooku moom bu ma yeboo ne la lu ne ci moom rek xam naa ko. aussi ñoo bokk benn écrit mais comme li kii wax rek ndaanaan la champion la toj na la àll bi fii Jaxaaw bu Jurbel booba ngay dem Bonje fu ne bu ma yoon nag àll yëpp la toj. mais simple ak bi mais comme li kii wax rek ñun dañuy def bëri bëri door def bëri simple ñun comme boo demee côté Jaxaaw yi nii bëri door la ñuy def mais ñun parce que foofu lañu ëpp li ñuy bëree kon xam nga ne ay benn combat yi jaaxal ma waaw. waxuma yokk entraînement. waaw man moom chaque jour ci laa dégg ndax comme ni ma la rek. maa moom nii lañ def ñëw ànd guddeeg bëccëg bu dee làmb amul benn làmb boo xam da ciy dem te àndul ak man kon xam nga ne kooku man xam na ne ci moom waaw. kontaan naa waaw merci merci merci. jàmbaar nuyu la. waaw ziar baax baax. waaw ja naa ñëw tey seet si tampon. tampon loo ñu am lu ñu wax loo ñu wax ci moom. tampon ah seet si yéen champion de moom. borom baax la et puis li muy def bëgg na ko mën na ko. mën na ko bu baax a baax fu ne yóbbu ko fa moom fu ne yàggul rek yóbbu naa ko boof moo jël nag yi ne woon foofu ñaari nag yi ne woon foofu moo ko jël yàggul dara afa feebar bi dugg nii waaw afa corona bi dugg nii waaw moo ko waa ji ñoom mi ak beto mi ñoom moom ay champion lañ bëgg na liñ def xanaa jàppale bi rek a des waaw mais Eh, ah, di wax waa pikin rek eh, seen doom lañ quoi waaw ñu ñëw jàpp ci xam nga affaire yi comme amuñu lu dul pikin fii la ñuy tiitaroo ñaan autorité yi ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp lañu xam nga ndax mën nañ liñ def bëgg nañ ko waaw loolu daal. jërëjëf jaajëf. tampon ñu gis la ñu ñëwaat fii ci seen benn benn place fii ñu ñëw fii fan la. fii ba tey ci marché bi la nekk rek waaw fii sama grand Aliou moo fi nekk ak ñoom Assane gaa yu baax yi am na samay grand leen fii laa leen fekk ñu ma aussi doon ay gaa yu baax ma jàppale bu baax a baax aussi waaw. père nuyu naa la. fay naa la bu baax. ñu gis tey ànd ak tampon mën a du def dara te ñëwul fii. waaw loolu de moom dëgg la moom du def dara te ñëwul fii de moom waaw. seen booy la ñu gis ko mu nekk ci làmb. lu ngeen koy conseillé ak ni làmb méttee mu bëgg koo booleeg liggéey bi. métti rek métti na trop jàppale bi moo des waaw. waaw lan ngeen wooyee jàppale. ah jàppale lan ngeen jàppale. jàppale comme ñun ñii rek en général fi mu làmb fii moom dafa métti ndax boo ñu nee pour nit ñi jàppale la day métti koo wax du la nangoo jàppale da dañuy dem ba maanaam ñu war a am am ñëpp door a ñëw riir ñëw dina jàppale loolu la de. soo amee loo koy conseillé lan nga koy wax. li ma koy conseillé moom mu góorgóorlu. waaw te jàpp xam ne maanaam moom du neex neexut moom waaw bala nga am li nga bëgg moom une fois moom day métti waaw day métti waaw. te en général balaa muy neex day métti. waaw xam nga fii bu fekkee juddoo fi pour nga doon fi mbir day jafe da ngay am doole mën a bëre mën lépp mais pour nga dem day jafe waaw mooy fii ay mbir kaamil fi ne mais pour ñu génn mooy loolu quoi pour ñu am combat sax day jafe. ñoo koy wax parce que ku ne xam na ne làmb ak xale jigéen ñi àndul. ku gi moom wóolu naa ko fi moom. foofu moom moom bu dee kii moom kaara boobu kooku moom wóolu naa ko fi moom. jub na quoi. non man am naa ci man daal wóolu naa ko moom. Ah. waaw. baax na noo gisee noo gisee yim la wax nee na boo nekkee mbër te dëkkuloo Dakar day xaw a métti est que loolu dal na la yow. waaw loolu moom dal na ma parce que boo xoolee man tey. Euh, sama morom yi ma débuté ndul booy xool ñoo ma xaw a raw ci làmb am na ñoo xam ne maa ngi ñoom ñoo débuté woon fii mu metti lool ñu ànd dem si àll bi ñu bokk benn drapeau bu ñuy bëre te am na niveau bu toll ci làmb man nekkuma foofa li ko waral lépp mooy ñàkkoon a mën a am combat fii moo ko waral moo yoo xamal ne kon ñi fi dëkk ak ñun ñi fi dëkkul dafa am différence waaw connaissance bi doo ko am daal c'est ça qui est le problème. loolu na léegi mën nañoo dem bi après doo ko dem. incha allah waaw ok waaw. ñu ñëw fii fii nga xamante maa ngi fekk ay saaku màdd fii fii fan la fii syndicat la ci syndicat la ba tey. Mm-hmm. mooy place sama grand Cheikh Cheikh Diop moom itam ku may jàppale si wàllu làmb la aussi. Mm-hmm. waaw. Cheikh nuyu naa la. fay naa la ñu ngi lay siyaar bu baax. di sant la suñu borom di ñaanal suñu Muntaxa mu yàgg suñu kanam te ànd ak wér. di ko ñaanal jawriinam ba Serigne Cheikh Jëmb Fall na ko saa gën a yàggal suñu kanam lool te ànd ak wér ñu leen di sant bu baax a baax ndax lii ngeen def nii yàgg nañ koo soxla mënuñu ko am te it syndicat bi yàlla dogal na ay champion ngi fi mooy tampon mi ak lii coor male ñu def lu ne bawol toj fu ne nag kii bëri na fi dee combat amagut defet kayit amagut defet waa syndicat bi yëpp ñooñu lañ yaakaar kon nag bu ngeen ñëwee nii pour euh, siiwal leen nii loolu ñun dañ leen ci sant amuñu seen fay ci côté boobu noonu nag dañuy ñaan rek yéen seen ci biir li ngeen ci bëgg yàlla na ko saa borom gën a yaatal moom mu gën a yaatu bu baax a baax a baax. ñu ñëw seet si ko mën du dem fenn te ñëwul fii te ku ne xam na ne mbër mu raw dafa metti yéen ñi surtout yéen ñi nga xamante ne da ngeen di jàppale naka ngeen ci naka ngeen ni dundee loolu mbër mu ndaw ak jàppale bi ni mu méttee ngeen bëgg mu feeñ ak yooyu noonu. waaw loolu moom sant yàlla rek xam nga jamono ko laaj. Mhm. yàlla dogal loolu doon seen métier. Mhm. ñu bëgg ñu nit ñu bëgg sport kon bu nekkee nag ñoom buñ ci nekkee it dañ leen di jàppale bu baax a baax leen dong la ñuy jooytu promoteur bu ñu tëgg dong la ñuy jooytu ñu xaalis billet la ñuy laaj ku ñu indil ay billet it yaakaar naa ñu bëril la bu mel ni Assane xam na ci dara waaw Bawol production suñ mbokk moom ñoo ngi koy nuyu bu baax te ko siyaar. non pare nan ñun pare nan ñëpp ñëpp ànd ak tampo madd bi sax bu ma nee dem stade dem non bañ a dem ak mango ma yow lépp lañuy ñuy yóbbu kaab yooyu yëpp la ñuy baraaki foofu buñ daanee jox leen ñu lekk ba daal yu ñib si ah, kan mooy njëkk boobu combat ma yow xanaa Bawol waaw waaw Bawol moom nañu gestu waa syndicat yi Bawol Bawol lan Assane Ndiaye yaa ngi déglu sa mbokk bawal bawal nee na nga tëgg leen ñu wàccee fa camion ma màdd boobaa làmb ji dina neex nañu gestu bu baax ñun moom lan am jamono ji ndax ñoo bokk dëkk bawal bokk lépp bokk Sëñ waa bokk lépp kon nag gestu waa syndicat mbiru syndicat yi jàppale leen ñun bu indee bolok sax baax na waaw bolok sax baax na dañu jaay ko tampon gis nga gars yi sas bi diis na ku nekk yàqam ci combat ñëw est-ce que xam nga fi mu toll nii yan bi diis na trop ci yow waaw diis na oyof na ci benn côté ndaxte li wax dëgg lu li ñu war ñoo ngi ci te làmb moom lu ci dégg soo dee entraîné rek di góorgóorlu lu ci des da nga koy teg ci loxo suñu borom. waaw noonu rek la ko demee quoi moo tax yan bi diis na dina diis si benn côté du diis si benn côté waaw noonu la ko demee waaw. soo amoon kàddu yu mujj loo ñu wax. ah xanaa di sant sama gars yi rek. gars yi waa syndicat bi yëpp li ko commencé Cheikh mi ak ñoom Moussa ak ñoom Béton luy Thior gars yi yëpp daal marché syndicat yëpp su ma limee dina ñu ma fàtte sama grand ndappa Cheikh Fall maa ngi koy jaar bu baax a baax siyaar tam fu ma dëkk quoi muy jaabel fu mu foofu laa dëkk côté Xelkom ak dëkk yi ko wër yëpp maa leen di nuyu bu baax baax ak am na ñoo xam ne dañ may jàppale si wàllu làmb te ay politiciens lañ dama leen di sant bu baax ku ci mel le directeur général de l'habitat monsieur Ousmane Wade ak euh, vice président conseil départemental euh, monsieur Amar Diop ak professeur Ngagne Sène ñooñu aussi ay gars yu baax ci man lañ dañ may jàppale di jël seen alal di ko def ci man moo tax dama leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ni ñu gën a jàpp nag gën cee jàpp bu baax ndax affaire gën a avancé waaw maa ngi sant ñëpp nuyu sama mag yeeg ñëpp daal di leen sant di leen gërëm. jërë ngeen jëf gis nga noonu lañ koy defee ak wasaare làmb xamuñ mbër mu mag xamuñ mbër mu ndaw nanga nekk champion am licence foo mënti fekk dañ la fu fekk jël la wane la bu baax a baax di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm Ndeye Bousso Ndeye Bousso Guèye maa ngi koy nuy bu baax a baax di gërëm di gërëm Adji Marème kooku sama doom la Mami Niang maa ngi la nuyu bu baax a baax Khady maa ngi leen nuyu bu baax a baax ñooñu tamit ay bawol bawol lañ dañuy kaas chaque jour ne du ma leen nuyu maa ngi leen sant bu baax a baax ñoo man ak ñoom ci fruits yi mango yu banaana yi lépp laa jël duma fay benn yoon Nova maa ngi leen nuyu bu baax a baax boobam beñ yi ah boobam keeki di wax sama wàll nag na ñëw sama wàll na ñëw jaay bi temps yi xam naa ne moo ngi dox kontaan naa bu baax a baax tampon xam naa ñu def noonu ba beneen yoon ah, rek. waaw baax na incha allah. jaajëf tàggoo daal bu baax wasaare moom kontaan nañ ci ñoom bu baax parce que bu leen neexoon ngeen bañ ñëw mën ngeen a naan kooku du champion du mbër muñ ma xam defu leen loolu quoi yéen lamb daal ngeen di dundal moom ngeen di wasaare yàlla na bi jëm kanam gars yi nañ mu gën a avancé waaw noonu la ñoom comme ni ko tampon waxee bu leen fàtte di abonné di bës kolos bu rouge bi Adama